Euh, mbokk yi ki ma taxawal ci làmb kenn du ko présenté muy caatu yaraax caatu euh, yaraax euh, bu ngeen bañee fàtte rek bërki dem moom bokk na ci ñu mujjee bëre arène nationale diggante ak serpent tey ñu fekk ko ci formation bi caatu yaraax maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi lay fay Baye Diéli di ziar sama caméraman bi di leen nuyu ñëpp di leen dalal jàmm di leen wax baa leen ñu àq ci tabaski bi ndax boobu ak léegi gën nañ gisante daal te baal na ñëpp si tamit hmm. waaw. tey formation bi noo ko dundee. waaw formation bi moom koo xam ne xam ne du mbirum cuune parce que c'est l'état loo xam ne office national de la formation kii sécurité rapproche te international la te aussi tamit làmb gis nañ ni mu demee il faut nga am wéeruwaay ñu ko ñit ñi waxee waaw un lutteur un métier mm. toujours nag ñun loolu la ñuy pratiquer comme que un lutteur un métier il fallait ñu am ay lijaasa yoo xam ne ni ñu ko def suñu poche pour que ëllëg ci biir bu làmb waxul dëgg ñu mën a xam fuñ jëm. Mm. te sécurité bi aussi tamit yee nañ ci lu bëri. Mm. ndax avant ay amateur la woon boo déggee amateur mooy ñi nga xam ne ñu doon fay xaalis ñu dem di yàq. Mm. di ànd ak politiciens yi mais actuellement ay professionnels lañ. dañu am suñu lijaasa am suñu carte professionnelle. di comporte comme comportement xam nga parce que fii boo fi ñëwee di nga xam ne formation rek mooy dëgg ñu formé ku nekk rek di nga nekk nit mais kuñ musul ne ko nit. Mm-hmm. lii dinañu permettre bu ñu demee ci làmb ji duñ def violence. Mm-hmm. bu ñu demee yenn mbëri sax di indi violence pour tëkkaloo nga nag waaw dama da ngaa bëgg sama combat. Mm-hmm. autre promoteur ñu tëgg ko man bëgg naa. su ko defee nga def euh, maanaam loolu respect la. su ko defee violence du am. maanaam lii daal mu ngi ñu jàngal lu bëri te aussi ñu ngi ñaan ñu ngi ñaax maanaam suñu mbokk mbëri ñi nga xamee ne euh, ils sont ñu ñëw maanaam gestu affaire bi parce que am na njëriñ trop loo xam ne c'est international yàlla mën a dogal ñenn ñi ñu ngi États-Unis bu ñu amee professionnalisme bii nii. Mm. bu ñu demee foofu du taxaw. Mm. parce que métier bi day fay am na xaalis. Mm. macha allah. ñu ngi leen di gërëm di gërëm waa fiis bu baax ku ci mel ni président Bamba Mbuub moom aussi tamit mu ngi encadré mbëri di ñu topp boobu ak léegi sérigraphe lañ jógee sérigraphe famille ñun def nañ sérigraphe bu am ci suñu diplôme ñu jógee ñun sérigraphe dem xoolaat ministre d' waa ANAMO ñu collaborer ak état bi ñu mun ñoo defal formation bi nga xam ne ñun ñooy premier élément à former à Dakar. Mm-hmm. ñun lañ njëkk a formé. kon maanaam du mbirum ci daal ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm bu baax a baax. Mm-hmm. franchement du lu yomb. Mm-hmm. waaw formation bi dama ñëwoon gis ñu bari euh, mbër yi boo leen gisaan seen karaw day bareeg yu mel ni mais dama gis ñoom ñëpp ku ci nekk dafa mel ni dañoo dagg seen karaw dagg karaw gi lan la ci. waaw waaw parce que. maanaam nit ki da ngay war a yor benn comportement boo xamee ne comportement la bu rafet ba tax na boo demee ci ay autorité dafa war am noo ndax tey bu ñu nee formation sécurité rek laal nga partie militaire laal nga gendarme laal nga police c'est national donc ñoom comportement bi ñu yor moom nga war a yor puisque autorité yi nga xamee ne ak étranger yu ñëw à l'extérieur du ñëw Sénégal bu ñëwee xool ñi xam ne ñii comportement yi rafet lañ yor mais nga tend sa bopp franchement def yenn dégradé yi bàyyi sa karaw muy am ay rase yu tilim ngay dugg ci ay nit loolu rafetul parce que gars yi bu ñu la xoolee duñ la nawloo duñ la respecté du ñu jox cër lamb ji nag làmb ji la bu lamb jotee moom mu du la neexee tental mu saf mais boo nekkee sa cadre liggéey nga xam ne liggéey la sa VIP bi nga war a àndal war laa gën a civilisé garde corps kese moom mooy sol tenue de travail buy jar cent mille francs ci mm. garde corps nga sol costume mu jar cent mille francs nga rek sa VIP mm. li muy nga sànce ko kenn xàmmee VIP bi ak garde bi mm. kon maanaam métier bu noble la métier la boo xamee ne aussi tamit maanaam tànneef la ci biir métier yi daal waaw gën na métier yu bëri ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm que yombul loo xam ne dañaa ñëw maanaam ñu defal ko gratuite te tey formation bi boo ko bëggoon tey di nga dugg fu nekk ndax ONFP bi bëri na agent yoo xam ne man mi koy def formation bi sax dañ may dab naa ma mbër fii dugg naa fi ba tey di def di déposer mais nangu ñu ma jël durant quatre ans ñu may rejeté kon bu ñu amee tey ñu mën ñoo former yaa ngi dégg maanaam gratuite aussi tamit dañ koy dañ leen di sant bu baax di sant état bi di sant ñoom Bamba bu baax fii di sant aussi tamit Matar Diop mi nga xam ne moom mooy le DG moom aussi tamit bàyyi ñu benn yoon franchement boobu ak léegi mu ngi taxaw ci mu ngi accélérer formation bi li war ci ñun mu ngi koy def franchement waaw ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di la sant Baye ji bu baax di sant sama waa ji waaw ñu lay jaajëfal bu baax jaajëf ginnaaw bi ñu ngi lay sant bu baax jërëjëf ok euh, ba tey ñu taxawaat keneen koo xamante ni la ba tey muy Ama Ndao euh, nekk Tigre bu Père Mbaye maa lay lay fay sama sëriñ. waaw tey formation bi ñu ñëw fekk la ci biir nga ànd ak euh, waa association FILS nekkoon ci euh, affaire bi métti na. waaw métti moom def na ko moom wax dëgg yàlla. Mm-hmm. mais sant yàlla rek parce que lu métti tam góor lay dal quoi. Mm-hmm. di remercier waa FILS mi nga xam ne nii tey jàpp nañ ci affaire yi ba ñu ñëw tey jii def formation boo xam ne tey. am na ñoo xam ne pour ñu def ko dinañ fay plus de trois cent et quelques mille. ñoom ñu ñëw defal ñu ko si gratuite. mu nekk loo xam ne nii tamit xam nga dañ leen si remercier bu baax a baax a baax a baax a baax franchement parler. affaire moom macha allah quoi ñu ngi ñaan yàlla nag terminer ko si jàmm ko mais franchement nekk na lu lu gën si ñun parce que tamit fii jàng nañ fi loo xam ne nii eh, nit dindu na ko ay at te jàng ko. jàng nañ fi yar xam nga technique. lu ne jàng nañ ko fii nii. di sant di ko sant yàlla nag bu baax a baax quoi. waaw. yow bi ngay ñëw bokkoon nga ci ñi ñu wat wala bokkoo ci. waaw dañ bi ma ñëw bon man bi may ñëw bon correct naa woon watu woon na watu woon naa mais dama gën a wàññiwaat quoi parce que lu bëri dañ ko ne nañ ko dindi quoi. Mm. waaw waaw. kon ñu ngi wane ni euh, li li ngeen formation bi ngeen am fii même bu ngeen demee ci làmb ji war ngeen ko fa am a yóbbu. dañ ko fay yóbbu moom la ñuy waxtaanee nii sax dañ ko fay yóbbu. parce que fii nii tey même bu ñu demee suñu kër yi sax suñu koñ yi. dañ fay wanewaat le bon exemple wan ne leen ñun am na si formation bu ñu jàpp bu bu ñu jaar ba nit ñi. war ñoo respecté ba ku ñu gis dañ xam ne kii changé na am na lu ñu def ci moom. fii jàng nañ fi loolu tey ñaan sunu chef yi ñu fi fekk aussi liñ bëgg sunu borom defal leen ko quoi parce que liñ fi jàng nii franchement parler euh, dugg na sunu xol te xam nañ ni am nañ changement. waaw waaw am nañ te gis ngeen loo xamante ne njariñ la ci yéen parce que ku naan la sangul sa taar la bëgg waaye bu ñu naan mbër ak métier kon tey lii am na beneen métier boo xamante ne yokku na ci mbër yi te dina laal mbër yëpp. waaw waaw lii loolu aussi dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax parce que métier bi parce am na mbër yoo xam ne tey jii dund nañ ba am 30 ans amuñu métier mais lii tey métier la international la ñuy am xam ne foo xam ne boobu foo dem mun nga ko liggéey lii jàng giñ jàng fii tey mun nañu yóbbu fu nekk xam ne dañ fa am liggéey xam di ko santee nag sunu borom bu baax a baax a baax quoi. waaw di ñaan aussi affaire bi affaire bi tas si mbër yëpp. parce que lii day dimbali ñi nga xam ne nii tey parce que am na ñoo am ay mbër lañ te mënuñu am combat. combat yi jafe na mais lii tey liggéey la woo xam ne nii boo fi génnee léegi léegi mën nga daal ci liggéey boo xam ne. dinañ la fay plus de trois cent ba cinq cent mille cinq cent mille francs kooku sant yàlla la quoi franchement parler waaw. Mhm. merci. waaw ah, ok jërëjëf ñu ngi leen di gërëm yéen aussi di leen sant bu baax a baax. yéen ñaanal li ngeen bëgg seen euh, site bi yàlla na leen ko sunu borom defal ci barke Seydina Mohamed. jërëjëf kontaan nañ merci. mbokki ki ñu taxawal kenn du ko présenté ci làmb mu Youssou Ndour bu Père Balla na Père. Père mooy fi maa ngi koy ñaanal wér gi yaram bu baax a baax. waaw mot suma yaay suma waa tante ñëpp. Mm. képp ku tawar rek maa ngi lay ñaan nga am wér gu yaram waaw. keroog sama émission bi passé maa ngi koy wax di ko ñaana wér gu yaram ci turu wasaare làmb gépp ñu ngi koy ñaanal parce que père suñu per mhm. euh, la. père ya njariñu làmb la père làmb dañ koy soxla dañ ko ñu ngi koy ñaanal yàlla na suñu borom fëggaat mhm. boppam. Mhm. ba mu delluwaat ci activité yi. tey ma ñëw fekk la ci association FILS ci formation bi euh, lan nga ma ci mën a wax. waaw xanaa dégg sama ndigal course moom moo woo ba ñëwee suba la sax la mu woo na ma yuusu daa am benn formation boo xam ne ma bëgg nga def nga dem def ko. Hmm. xam nga. su ma neexoon tamit ma bañ mais. Hmm. comme moom mooy sama coach lu mu wax dama koy def. Hmm. ma ñëw fekk ay ñoom Tidiane Faye ñoom Amandaw. ñoom ñëpp nekk suñuy grand jiital ñu. tamit ñu ñëw bokk ànd ñoom rek. waaw. formation métti na. na trop. man mbër yaakaar dara méttiwul ci bopp. ko laaj bu la la métti la lool. xam nga la ma doon bokkul. Euh. mbër da ngay dem di soo mars. mais fii boobu ñëwee ba tey xam ne soo guñu defaguñu yëf mbër. yëkkati wuñu weñ defuñu dara gisoo état bi mu jeexee. te ba ñu soog dugg si ku nekk macha allah. xam nga ñun ñi am combat xam nga arrangé nañu. ndax bu ñu ñëwaatee daa indi leneen waaw. tey formation bi ñu bari nee nañ euh, metti na euh, mais lu metti góor lay dal mm-hmm. tey ñu ñu ñu bëgg mbër yëpp ku ci nekk am bëgg làmb ne ci làmb mais en même temps nga am métier mm-hmm. moo tax ñu tuddee ko mbër ak métier lan nga gisee loolu waaw ñun ñun am nañ métier mm-hmm. ndax man mii di wax menuisier laa yokkaat nga ci beneen métier waaw mais yokkaat naa ci beneen métier mais boo xam ne gëj naa liggéey laa nag du ma du fen yaa ngi dégg mais moom mooy sama métier préféré mais lii tamit dafa ñëw gën a yokkaat ndax am si amoon benn xam-xam. ndax ñun dañu ñu doon bu njëkk dañ ñu doon utiliser. ndax dañu ñu daan fay junni wala ñaari junni. ñu jël suñuy xeer dem yàq ay mitin wala def loolu léegi defatuñ loolu. léegi dañuy demee ak suñu xel. ak ñuy jàngal fi ak technique. nekk suñ fi yàq di jaxase benn mitin. suñu xel lañu demee. kon instant yi ay professionnel ngeen te dañ leen waaj a jox seen lijaasa. waaw ay instant ay professionnel lañ instant ñoo ñu waaj jox suñu carte. bu ñu amee carte ñu gën a nekkaat professionnel dama defaat ah, lii doon ma ko bàyyi de. damay demaat def beneen formation. Mm-hmm. kon gis nga ci njariñ bu baax a baax a bu baax a baax a baax damay dem defaat beneen formation làmb ji am nañ problème. Mm-hmm. bébé Julé sax am na problème. ndax moo war a jël sama avance. waaw léegi fi mu toll nii mu doon loo xamante ni euh, leçon la ci mbër yëpp ban lan ban message ngay wax mbër yi nga xamante ni duggaguñ ci te war nañ cee mën a dugg. waaw kon lu may wax sama mbokk mbër rek képp kuñ ci wax. woo la téléphone dana ñëwal ñëwal métti na nag mais lu métti góor lay dal. yaa ngi dégg yàggul. mais ñëw leen ngeen def formation ndax ñun ñun dañoo bëgg sécurité dañoo bëgg ay garde yëfu nervi nañ ko bàyyi. ñun dañoo ay nervi yaa ngi dégg ay professionnel lañ. nañu ñëw yor suñu carte liggéey suñu liggéey. bu làmb ji doxee ñu dem si làmb ji. bu gaare bi demee ñoom dox dem gaa gaare ji. te métier bu noble dafa noble ndax instant am loo xam ne xaw ma ko suwoon sax ndax da ngay sol boo xam ne da mille. Mm. nga sol ko dem di liggéey liggéey loolu noonu bu la koy def. waaw. Euh, tey bokk nga ci ñi ñu wat. waaw waaw bokk naa ci ñu ñu wat. gis naa sa karaw lu belaw. sama karaw lii dafa suq maa rëppoon karaw fii. Ah. mais dañ ma wat yar teggin. Ah. ma watu. su ma ma bañ. mais tamit maa hmm. daal moo tax sama waa écrit ñoom ñëpp maa leen di béyee. instant yaa ngi correct naa xale yeegi jooy sax daal saa dafa damaa ñàng gisoon ma mel nii. Eh. waaw ma génn fii ba pare. ba defaraat bopp bi. Oh. waaw yaa ngi gën a noo. maa lay jaajëfal bu baax maa baax a ba tey ñu taxaw kenn koo xamante ni euh, ci njabootu làmb la bokk muy Ibou Ndapa numéro 2 mu def formation tamit ñu ñëw fekk ko comme ay naataangoo mbërëm euh, Ibou maa lay nuyu. maa la fay gënde. tey ñu ñëw fekk la ci formation bi nga indi ceeg say moromu naataangoo nekk ci formation bi yàgg na metti na euh, diire na. waaw formation bi mën naa wax ni yàgg na yàggul. Hmm. metti na mettul parce que comme sportif moom boo owee ci wàllu esport hmm. malgré am na différence am na différence comprendre nga mais na ñun yàgg nañu entraîné métti na trop nag moom ku la wax ni méttiwul ku ne da leen nax moom métti na lool. mais sant yàlla rek comme ay góor lañ te lu métti góor lay dal lu métti mun ñoo jaaxal. formation bi lan moo la ci gën a marqué. formation bi euh, comme ganaar yi ko ganaar yi nga xam ne ñoom ak asos bi muy waa FIS. di liggéey ak waa ONFP. Mm. ONFP waaw. Mm. di liggéey ñoom. comprendre nga pour euh, euh, mbëru Sénégal yi seen Sénégal bi am ay diplôme parce que instant yii toll nañ euh, période boo xam ne boo nekkee ndaw te amoo diplôme yow sa doole te amoo diplôme rek daanaka dafa mel ni yàgg yàgg bàyyi ma yéen a xaw a yem parce que dëgg doole neex na trop. mais doole ju ànd ak euh, ay këyit dafa gën a wóor. Mhm. Euh, tey euh, ngeen dem ci formation bi def am na ci partie boo xamante ne buñ la ko def looy dina am leneen boo yëpp par rapport ak ni ngeen doon entraîner parce que ku xam mbër xam ne yéeg din dem musculation contact xeet yooyu te entraînement formation bi bokkut ak loolu tey yow lan nga ci gën a yëg. wax dëgg yàlla man moom la ma ciy sant moom la ma ciy sant bu baax parce que côté entraînement bi moom du benn. Mhm. entraînement bi moom mu entraînement mbër ça yoo xam ne euh, day xaw a niru bëree mais ba léegi du doon benn. mais bu dee entraînement yi moom bu ñu wax la yàlla moom li nii moom mosuñu ko daj. Hmm. te technique yi mën na la accompagner ba ci biir làmb. waaw waaw technique yi moom doy na waar trop trop trop xanaa li ñuy kii kay xanaa xaw a xaw a gàtt gi rek. Hmm. mais wax dëgg yàlla moom ñu ngi sant comme ci mel ni père Ibrahima mbay ak waa waa office ñi xam ne dañu lëkkaloo ak waa état bi. pour maanaam mbëru Sénégal yi am ay diplôme mën a nekk au niveau quoi. lan ngay wax sa moromu mbër yi nga xamante ni bëgg nañ lu mel nii te amuñu ko. waaw li mel di wax rek ñu jéem a jéem a lëkkaloog uh, waa waa office. Mm. buñ lëkkaloog ñoom parce que ñoom waa office dara ñorul leen lu dul jeunesse bi rawatina wàllu làmb. Mm. lu ci mel ni maam Khadim Bamba. Mm. ak ñoom Ibrahima Mbaye ay bëgg fàllu ñoom ñëpp ànd na ko waa ëllu làmb yëpp. pour maanaam jàppale mbëru Sénégal yi pour ñu mën a am maanaam niveau bu baax quoi. foo toll ci làmb waaw làmb ñu ngi en train di préparer ñëpp gis nañ ni mu demee nii di lancer woon appel rek gars yi nañ nañ ji gën a fonk euh, mesures barrières yi ji ma respecté bu masque yeeg lépp xam ne maanaam corona bi ñu ñoo ko mën a xeex pour jële ko fi waaw hmm. ma lay jaajëfal baax jaajëf ok ki ñu taxawal kenn du ko présenté Sénégal mooy ki nga xamante ni mooy taalibe Ablaye Wade Daara Wade Ndiak Fara Wade Ndiak yuquma ci sama xeer bàyyi Karim bàyyi Sinjele doomu nday yaaw jaal sëriñu yaaw jaal yaaw jaal taalibe Ablaye Wade maa ngi lay nuyu. waaw laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ba ma sante sama ndey sant sama baay sant sëñ Abdou Karim Mbacke borom maxrim ak laa sant sama sëriñ Ablaye Wade sant état Sénégal yëpp. lu ko dalee i Sall ba si suuf. Hmm. ñu ma leen sant bu baax di leen gërëm. waaw tey ma ñëw fekk la ci association FILS nga nekk fi di def formation garde rapproché ban yëg-yëg nga ci am. non association FILS moom. vraiment man maa ngi sant ñoom per Mbaye Guèye di sant ñoom Ibrahima Mbaye ak ñoom Bamba Mbuub ñoom grand Ibrahima euh, Abouli Abdou Dalifor ak ministre employé Dame Diop ndaxte lii dafa nekk loo xam lu rafet la mën mu koo rafetlu man ndaxte tey bu ñëwee ak làmb ji fu mu toll nii ñoom ñu lëkkaloo ak état bi ne dañuy créer pour garde rapprochée di jéem a jël mbëri pour dugal leen pour ñu ne garde rapprochée xam ne loolu sant yàlla la man loolu dama ko rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax ndaxte classe yaawu jàll yi nga xam ne daanaka lu ñu desati islam bëreetul nga bëgg leen na jël bëgg leen dugal si beneen millier xam nga millier garde reconnaitre dafa nekk millier bu garaaw boo xam ne xel ak xalaat ak xam-xam xel ak ak xam-xam nag du si lamb ji kese surtout garra la ki beneen métier waat la si yaaw jàll ak beneen comportement la waat encore xam naa nag dinaa jaaxal Sénégal parce que yaaw li ma jaaxal mooy ku gis yaaw la ngay njëkk a gis mooy reetaanu yaaw ku gis yaaw kontaanu yaaw ngay gis te ku gis euh, ku xam garde rapproché xam ni dafa nekk liggéey boo xamante ni euh, nit ki warulaa ñeme waaye warulaa ragal te loolu faw nga am benn caractère boo xam ne danga koy wane est que yaaw mën na loolu waaw mën doo fa nekk ba pare di caaxaan tey soo ànd ak sa VIP da nga koy gérer normal taxaw du fas kanam yéen fas kanam yi sax ak ñeen nit ñi ba nit ki bu lu gisee sax day ne kii dafa soof ak yooyu noonu dañu am benn visage boo benn visage boo xam sa kanam boo xam ne da nga xam ne da nga xam ne ñii xel amul lu mu jëloon xalaat bu ñu la gisee nga tax taxawee ne neem rek gérer nga nekk si liggéey rek nga togg sa VIP di nga xam ne kon lii yaawu jaay bu demee ba taxawee nii si liggéey la nekk liggéey ju ma nekk nag liggéey làmb ji bokkul liggéey làmb ji dama naan ne dara rek ñëpp ne yaaw ma jaar gauche jaar droite mais lii job gar raccroche bi bokkul lii boo ànd ak sa kilifa wala nga ànd ak sa fiyaaf yi da ko war a mën a gérer normal du nga xam ne du am benn jafe-jafe du am benn gàllankoor population bi nag ak fépp foo xam ne ñu ngi fa war a mën dem nag population yi na dawal seen coopération mais am na ñoo xam ne ñu dawal coopération duñ mais léeg-léeg nag mën ngaa gis koo xam ne sa fan la sax mais di lay giree mais di coren tamit xel amul mu njëriñ lu xalaat da ngay seere rek jàpp sa ñaamur mu ñu seere quoi xam nga loolu ñuy wax garde rapproché mais nekkul nga nekk garde rapproché dugal sa di yéeg di ne a gudd fan naa bett gars yi nag de gis nga ma bettoon sa làmb ji ñu naan comédien du comédien bu ma xëyee paa mm. nag moom la raw bu andee ndog lu suñu borom waaw euh, tey mu nekk loo xamante ni euh, mën na la accompagner fu nekk làmb ji boo demee mën ngaa wane euh, affaire professionnalisme ci biir bu dul làmb tamit mun nga koo wane tey yow formation bi biñ ci kii yan coono nga ci gën a daj. noo wuu ci affaire na loolu wax dëgg yàlla moom ndax dafa mel ni bangoo moom ndax lu ma gars yi di expliquer ak lu ma gisal sama bopp ñu ne ma yaaw lu ñu leen dóor li am na ñoo xam ne sa xolal yéen leen ëpp sens fu mu toll nii dañu embarqué wu loolu moo lay wan ni nii gars yi nekk Casamance wala gars yi nekk Bango coono bi mel ni li ñuy man xol man ba ma gëj a war na am daanaka huit mois xaw ma neuf mois mais instant bi sama yaram lu mu daan méttee wala promotion yi lu mu amee jafe ba si dara dara dara dara barke la te vraiment man moom maa ngi ñaan yàlla rek lii nii yàlla na réussir yàlla na ndaxte ba mbër yi gis seen i ndaxte laa mujj toll na foo xam ne ni dafa doy waar nekkul nekkul garde de corps rek da ngay ñëw ñu fere benn dix mille francs wala benn quinze mille francs ñu ne demal xeex non doo xeex doo xuloo doo histoire gérer sa vie fii ba nga xam ne boo ko defee suba yaarama la sotara sul bu bëree bëree amateur dafa am ak garde de corps amateur moo nekk koo xam ne da ngay ñëw yëkkati benn junni wala benn dix mille ne yaawu jaal xam nga kon kooku garde de xam nga ibisa man boo gis affaire ma gën say yeewu man waa dikk ak waa conk ba si waa central ak waa quatrième yaa am na kat ñooñu dama yàgg gis seen visage ak jamono yi lu mu gis koo xam ne dafa gratte ba mari mais boo ko gisee da ngay yaakaar kii dara fekk na booba lu nekk si biir bopp bi nekkul sax kee xam ne si boppam bëri na secret yoo xam ne heure bu ma waxee rek ñoom la ñu ne ma yaaw yu am da nga see na booba jaar ko laay jéen conseil waa kër Abdoulaye Wade ak gar ko ñu ma fa daan fekk ñuy wax ak man su xam ne ñii ap mooy loolu su ma ñëwee gars demee noonu damay xam doon ma si sawar moo tax bu bëri naa si yi nii ñoom seen yónni ba à la fin ñoom ñu jàpp ne nag du ñu ma jege woon yi kon am loo xam ne sant yàlla kon ba tey su demee ba nguuru Sénégal ñëw créé lii ànd see ko waa fiis ànd si ñoom Bamba Mbuub ñoom Père Mbaye gi ànd si ñoom Père Ibrahima ak grand Ibrahima eh, ki mu a ah, yi yaa ma dégg ñooñu kere ñu ñoo ànd ki kii euh, ministre employé Dame Diop xam kon lii dañ koy rafetlu man nag man ngi siy ñaax sama mbokku mbër yi comme lamb dafa xaw a man de bu doon sama soog moom lamb muy dox saa su ne ba kenn ku nekk lekk si ay milliards mais nag bëgg naa nag mbër yi ñi ñëw di jege si affaire yi suba ñu mën a am lu ñu mën a toogaat pour ANCAR notre am na solo trop yaaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax baax. waaw man nag maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. yaa ngi nuyoo nga commencement bi. Ah, waaw mais damay nuyoo sant rek kon boog man maa ngi sant waa Sénégal yëpp. di ñaanal liggéey bi nga xam ne ñoom am nañu yéene. Ah. yal na seen yéene yal na seen yéene àgg. ñu xam ne nag yaaw jaalu démb ak yaaw jaal tey ça fait deux su ma nekkee sa lamb ji moom lamb ji sax léegi ne bu yaakaar ne loolu mel na sa lamb dama ñëw indi ay corox yaaw non beneen am loo xam ne dafa nekkaat sama mbir bopp même su ma nekkee sama koñ wala ma génn si mbedd bi di taxawaalu sax am na yoo ne léegi fu mu doon nekkul yaaw jot na pour kii kii beneen yaaw jàll hmm. waaw kon boog yaaw fourrière bu Grand Yoff mbokk yi moom laa taxawal nii euh, fekk ko ci formation bi moom it mu def comme ay moromam naataangoom mbërëm ma lay nuyu bu baax a baax. ma maa lay fay jële di nuyu waale waal wasaare làmb yi ak bokk internet yëpp xam di leen nuyu bu baax a baax boobu ba léegi tamit ñun ñu ngi si liggéey bi quoi yaa a xam. noo dundee formation waaw dund ko ak samay gaay rek parce que bu ma ñëwee samay mbokk mbër laa fekk xam nga dund ko ñoom mu rafet xam nga affaire bi métti trop mais ñu ngi jàpp rek xam nga tamit. te tamit góor góor dafa war a bëri dafa war a bëri ay pax quoi bare war a bëri métier xam nga tey jii ñu ngi si làmb ji tey gis nañ tamit corona beeg yooyu noonu xam ma gars yi ñëw appuyer ñu xam nga indiwaat ñu leneen mooy maanaam formation formation garde rapprochée maanaam ñu daan daan nañ yàgg nañ def ay sécurité sax mais boobu amuñu si woon xam-xam tey gars yi jël ñu encadré ñu xam ma ba tey jii nii ñu mun a ñu ñu mën a buñ si génnee ñu mun a xam fu ñuy teg suñu tànk bu baax si wàll ci métier bi. Mhm. tey fi mu toll nii bi ngay dugg ci eh, liggéey bi nan nga ci duggee bi ngay dugg ci formation waaw ba may bu may dugg si dama see dugg dama see dugg ak ambition rek. xam nga parce que bañ ne eh, diplôme d'état rek xam nga état bi pousse ñooñu ñooñu kii jàppale ñu xam nga ay bàmba ku ci mel ni bàmba xam nga ñëw gis ñu. wax ñu projet bi xam nga ñun du ñu def lu dul tamit xam nga appuyer si parce que dañoo bëgg dara bu dara dul dara te tamit gis nañ réew mi fu mu toll instant nii xam nga yooyu noonu bëgg nañ bu ñu bëreewul nekk jàpp si leneen xam waaw parce que ñun ay ay soutien de famille lañ te tamit euh, yaakaar nañu ñu ñu yaakaar tamit bëri na quoi. Mhm. ñu ne mbër ak métier te association FILS loolu moo ko tax a jóg tey lan ngay wax sa yeneen mbër yi nga xamante ne làmb rek lañu yaakaar te amuñu métier. waaw dañ wax ñoom ñu ñëw seere rek ku ci képp koo xam ne ni sa wërsëg nekk na si rek xam nga nga ñëw seere si quoi parce que li njëriñ kese la waaw parce que ñun bii mooy suñu deuxième formation sax avant lii amoon na beneen formation boo xam ne def nañ ko xam di ci woo gars rek xam nga nguur gi tamit gën a jàppale gars yi ONG bi xam nga gars yi gën leen jàppale quoi ONFP bi xam nga gars yi jàpp si bu baax a baax a baax waaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax lay bu baax a baax ok mooy tey beneen champion taxawaat nañu moom muy Boy Mar Boy Mar nekk école de lutte bu Père Mbaye euh, gis la ci formation bi nga nekk ci euh, ban yëg-yëg nga ci am. waaw d'abord ñu ngi sant yàlla bu wér a wér di gërëm suñuy waajur di ñaanal sama yaay fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge sama papa yàlla may ko wér ak mbooleem jullit fii dañ fi ñëw fekk fi loo xamante ni bii première fois bi am na fu ñu jot a jaar ñu nag waa fiis te tey ji ñoom dañoo jóg pour jàppale jeunes lutteurs yi nga xamante nii ñenn ñi dañuy somme ñenn ñi amuñu fu ñu taxaw te tey ji loolu noonu ndimbal la tey bu ñu ci taxawee ñoom ñu dox jéego bi état bu ko gisee tey ji dina am lu loo xam te nii dina xam ne lii ñoom ñoo ko waroon a def tey tey ay doomu dëkk bi jug nañ di si demancé di ko dox kon loolu ñoom dañ ciy kontaan dañuy nangu pour jàpp lañu mais lii gis ñu si tànk arrière ñëw nañ fi fekk nañ fi suñuy kët suy baax ñu ngi teg si code di ñu def loolu loo xam te nii daan nan xam ndax bu njëkk si wàllum sécurité bi dan daan ñu jël ñu dem ay xeex lañ ñuy doyee di nu fay loo te du dox mais jamono ji am na lu ñu def loo xam te ni suñ biir kër yi sax bu ñu fa demee yàlla dafa def ni day am beneen vie booy dundee ak ndax di nga dund dund boo xam te ni di nga am sécurité sa bopp utal ko sa famille ak fépp ay jamono wax nga jàpp ni am nga doole rek nga dóor jamono ji loolu ñun dépassé nañ nervi bu njëkk nervi la woon mais léegi garde rapproché ngeen ngeen seen diplôme doon ay loolu wér na ndax tey jii li tax loolu wér ndax ñëw nañ fii xam nañ loo xam te ni xamuñu ko woon tey jii nit nu mu munti ñëwee mun nañoo wax ak yow ba nga dal te dem te duñ coow ak yow ñun essence yi dañuy défense nit ñi mais duñ attaqué ñun jàngaluñu loolu te tey jii ñun ñëpp ñu ngi ci gis suñu bopp pie man de gis naa si avancement dañ daan dem mbapat dem làmb dañ daan jàpp sa xarit sax nga naan homme de tenue bi li muy def du yoon affaire yooyu mais bi ñu ñëwee tey ba xam professionnel bii nii tey ñu jàngal ñu Matar tamit nekku ku ñàkk ñaan da lay jàngal xam ne xoola sonn nga sax mais dina mbalaganteeg yow sonn na mais mu ngi muñ chef Gueye waxi nopp moom moo yor technique moo yor lépp mais ñun ñu ngi sant yàlla biñ demee ba Ahmadou Bamba Mbuub mi nga xam ni moo dox jéego yooyu ndax bu ko neexoon mu toog du ko def dem na fu ne tukki na fu ne mais bu ko neexoon du dox jéego yi dan daan ko topp ñun naan ko Bamba tëgal ñu ñu bëri mu ñuy tëgal ay mbapat ay Kër Masaar ay Parcelles ñu dem ba seen ne ku amatul licence dooroo tëgg laam après moom dafa ñëw indi initiative bu rafet bii ne kon kat ma xool lu ma xamante ni naa si dox jàppale si mbëri loolu suñu ndimbal la premièrement jiital nañu ci sérigraphie ñun ñu réussir ko mu dugal ñu si te yamul fii dégg naa day continuer loolu nag ñu ngi ko ciy sant di ko gërëm di wax ni sama yeneen moroomu mbëri buñ taayal heure bu ñu leen woowee su yu mel nii ngeen jóg ñu dem buñ xool leneen mais nañ xool xam-xam bi ñu ciy am ak dignité bi ñu ciy am ak personnalité bi ñu ciy am neex na torop nga nekk jeune pare ci fépp ndax xale mooy yor réew ëllëg. yow bi ngay ñëw wat nañ la. man bi may ñëw bi may bi may ñëw karaw gu bari laa indi woon. bu baree bari bu baree bari mais dañ maa wat. man maa dañ ne watu man ma njëkk wat sama bopp. ñu ne ma lii sant ñu la ko ñu wat ma ba ma set wicc ne loolu mooy yoon bu ñëwee dañuy teg daan yoo xam te ni lii moo nu war buñ dugg see rang xam na li ñu war a def ak li ñu war a def mais tey jii nag lépp lépp si sutura la suñu biir ndax loo xamante ni nii du loo xamante ni public nga koy joxe waaw métti na trop mais yëfu góor la. da ngay ñëw loo war a fay xaalis bu bari yàlla dimbali la ñu la koy may kon loolu danga war a sant yàlla képp koo xamante ni jiite nga si yaa ngi ciy taxaw di si jàpp yàlla boo si gis loo xamante ni dala siy rëccu ba nga ciy génn ñoom ñu changement ci kaw si kanam di wax ne nag yéen yàlla mbir mi yokk di gën a dox ngeen yi gën a dem fu ne yàlla may leen wér ba foo leen loo dugg lu nekk ngeen génn si ak jaam ak salaam waaw ñun nag ñu ngi nii jeune lutteur lañ nekk suñuy gox sunu gox nag képp koo xamante ni yaa ngi doon supporter si làmb xamal ni mbër bi nga doon supporter dëgg la si biir làmb ji mbër la mais su génnee tey agent sécurité la professionnel boo ko doonee dafa am loo xamante ni da nga koy joom xeexloo wuñ benn booy ndax tey jii bu fekkoon dañuy xeexloo booy duñ dugg si lii chaque jour dañuy indi scandale mais bis ni ki tey ñun ñoo leen koy ñaan damaa wax sama tur mais dama ko wax ci turu mbëri yëpp ki nga xamante ni jaar nga ci formation bi say booy ngay wax ak ñoom ñu xam. ñu xam ne carrément jamono ji tollatul foo xamante ni nii da ngay ñëw nga ne da ngay dóorante wala lii lu munti am xel mu sell boo ko waxee doomu aadama dina xam ni kii kat am na fu mu jaar am na luñ dolli si moom te ñun loolu lañ dund fii am na luñ dolli si ñun tey jii xale bu ñu àndal sant ñu la xeex sant ñu la dara lépp nañ ko négocier mu jeex ku nekk loo xam nga demee fa. am na solo. ma lay jaajëfal bu baax baax a baax a baax mbër. keneen a ngi noonu beneen mbër euh, Pape Thiam école de lutte Djimbory maa lay nuyu. maa lay ziar bu baax. xore noo def ak coono. ñu ngi sant bi euh, dugg nga ko ci jàmm euh, fas yéene ko yeggalee ci jàmm ban yëg-yëg nga ci am. waaw alhamdulilah sant rek commencé nañ ko ci bisimilah fas yéene ko jeexal ci alhamdulilah rabbil alamin nekk na loo xamante ni daal famille la daal te biñ ci duggee gis nañ ci njariñ. Hmm. waaw comme dañuy ñaan yàlla rek. essence yi lépp famille daal dañuy ñaan yàlla xam nga mu nekk loo xamante ne luy jëm ci kanam ma ciy ñaax tamit sama mbokk mbër yi ñu ñëw adressé wu adressé ci gars yi te xam ni njariñ la daal te ku ci dugg après di nga xam ni njëriñ la. Euh, bi ngay ñëw mbër yi ñu ci bari dañ doon soqal karaw ñu wat leen yow bokk nga ci ñi ñu wat. waaw man ci ñu wat laa bokk nag. yow sa karaw nu mu toll. waaw dama defoon ay njeeñ. waaw mu bëri woon loolu nag macha allah rafet tamit. waaw gars yi daggloo ma ko biñ ma wan loolu nag. touché na ma trop mer mer naa ci daal <laughs> waaw mais tamit après bu moo ko defee tamit sant rek laa ci gis daal xam ni éducation bu baax la daal. waaw ndeke garde liy jiitu mooy dañuy toj sa xol ba lépp lu ñëw nga mun ko dégg. waaw xam ne ku yar defar ko dërëj ko ba kii euh, nga watloo ko ko métti nag noonu la demee nag. wax dëgg yàlla ni nga doon nekkee bu njëkk ak léegi ça fait deux échange li ngay njëkk a incarné mooy professionnalisme bi waaw da ngay jël sa bopp nga def ko professionnel waaw nekk na loo xamante ne daal lu mucc ayib la mun mhm. na la dimbali ci ci wàllu garde rapproché mais mun na la dimbali tamit ci làmb ja en même temps waaw ndax tey jii boo xoolee ñu ñëpp bu ñuy ñëw fii nii ëppoon nañ ñi mais boobu yoroon nañ poids boo xamante ne du suñu pois doon nga gaaw a sonn mais instant yi liggéeyal nañu cardio liggéey ñu physique tey mun nañu li ñuy xëy di daw par rapport ak bi ñuy doog a commencé léegi mun nañu daw longue distance te doo ko yëg franchement nekk na loo xamante ne moom nice na trop. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa leen di bëggee tamit di leen kontaanee seen site bi wasaare ca kanam daal. ok xarit.